asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk jullit yi maa ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziara ku ñuy wax Habib Thioy moom moo def audio bii muy ku ñuy wax lamin Sall ak ku ñuy wax Galaye Ndiaye ak ku ñuy wax Xaadim Bousso ak ku ñuy wax Maam Cheikh Mbacke ak ku ñuy wax Papa Ndiaye di ci tontu ñi nga xamante ne ni ñoo defoon ay ojo ku ci mel ni Serigne Maam Cheikh Mbacke ak sëñ Lamine Sall ak sëñ Pape Ndiaye ak Imam Xaadim Bousso lañ doon wax ñoom concerné Euh, benn université boo xam ne moom lañ wax ne moom la docteur di waaj def ci Sénégal te ñoom ñooñu lañ doon wax lépp amul benn kàddu gu dépassé goo xam ne wax nañ ko ki nga xam ne mooy Ahmed Lo wala ñooñ Ahmed Lo yow nag bi nga ñëwee di tontu da ngaa waroon fexe ba ñoom lañ wax teg ko ci xam-xam bu leer nañ ñi yow boo ñëwee di tontu yow it nga indi xam-xam bu leer nañ ñi te ànd akub yar waaye su fekkente ne mu kàllaf nga dey mu kàllaf muy yaradiku nga mu kàllaf muy yaradiku nga mooy da nga jël ay jëmm yoo xam ne kenn ku ci nekk mus sànni benn baat te yow kenn ku ci nekk jël nga baat bu ñaaw a ñaaw nga teg ko ci moom ah. yow nag su fekkee da ngay jëfandikoo alxuraan wala sunna dana ma jaaxal ndax ka nga njëkk a tudd di borom xam-xam mooy Serigne Lamine Sall Lamine Sall moom ku ko topp ñaari at yi da ngay xam ne ku dese la comme xelam newut ci moom la ku feebar la daa wérut ab dof ndeysaan daa naqaree bokkat lamin Sall ay bokkam ci boppam ñoo ko jéppi ba amatuñ fuñ làqatu moo tax lu ko neex wax dof nag moom li jaadu ci moom mooy nu yeewu ko wala ñu yóbbu ko dalal xel ndax buñ ko yóbbuwu dalal xel dana fi def wala mu wax fi loo xam ne ñoom ñëpp jamono ju ne ci gàcce la ñuy dëkk Serigne lamin Sall la nga njëkk a teg ci moom mooy da nga ne ab dof la ab dof li nga xamante ni moom lañ koy xàmmee mooy ku amul am xelam bopp bi nga xam ne moom la yor day bu ko sa bu fekkonte ne bopp boobu sa baay bi la jur xamoon na ne bopp bi nekk ci Lamine Sall yaakaar naa ne bopp sëñ Lamine Sall la gën a soxla fu sa bopp boobu ndax sëñ Lamine Sall boo taxawee ne ko dafa wérul wala dafa dafa dof ku dégg sa kàddu nga xam ne ne waxoo dëgg wallaay waxoo dëgg daa wax la nga xamante ni moom moo am te la nga xamante ni moom la wax kenn mënu caay dindi dara mu mel ne ñoo ngi dégg Habib Thioye cooy bu sooy bi su ne cooy bu sooy bi nag mooy dafa sooy fa teg tànkam fa mu ko dóor foofa baaxul ndaxte dafa fekk ay gor fekk ay sang ku ñu baax ñoo xam ne jikko yu sell lan amee ñooñu nag la dem attaqué waaye nag dafa daanu tey dafa toroxal boppam kanamu wóy yu dëgg la yor de waa ji kanamu wóy yu dëgg dëgg kii nag sëñ Mouhamadou Lamine war naa xaru nag kii bu fekkee sëñ Mouhamadou Lamine la leen wérut yàggam geeg kanamam gii nii bu demee ba naan sëñ Mouhamadou Lamine Sall wérut sëñ Mouhamadou Lamine Sall war naa xaru nag war naa xaru de waa ji nga xam ne sëñ bi ku mu jéggi sam ndox doo ko naan nga xam ne sëñ bi waaye waa ji dëgër na fit bi ñëw nga it ci imam bu Bousso ma ñëw ci mbokk mu ñuy wax xaadim bu soo porox bu doon gërëm ñamu daaw foo dégg Mouhamed Ahmed Lo dangay ngay sukk sa bëti oom fottasu waaye tey ñetti dërëm yi àdduna ak benn grand bu bëgg 10 dollars yu ñu lay jox tax nga jaay sa ngoro nit nag bu jombut a fen jamono ju ne mën naa fen te comme xàmmeewuñ kan ngay fen ak kañ ngay wax dëgg lépp loo wax dañ koy jàppee fen delloo la ko xaadim Bousso ñëw nga it ci imaam xaadim Bousso foofu tamit da nga faa wax wax joo xamante ni lépp ay tanaaxut la maanaam wax ji daal kenn xamut lu mu nur ndax da nga ne si xaadim Bousso moom purux la du gërëm ñamu daaw ndeysaan mu mel ne kon yow Ahmed loo mi nga xam ne moom ngay défendre Touba la jàng lu ëpp ci xam lu baree bari bokk ci xam-xamam lu baree bari jàng na ko Touba ak li wër Touba ko it ci waa tasawuf te moom day ba nga xamante ne nii mi ngi dal ci waa tasawuf amul kenn comme ci ràññeel la ñëpp la boole dugal ci benn poubelle ba mu ca jógee nekk biir Touba képp koo xamante ne nii ab ibaddu nga ba am lu la naqare Touba génn Touba bokk na ci ay waxam yooyu nga xam ne moom lay wax ak lim bind ci téeram bi tax nga liir lu mel noonu ak dégg lu mel noonu nga xam ne fu mu toll di wooye waa tasawuf waa ahlul bidaa nga génn Touba gàddaay kon moom moomu nag ci moom nga waroon a njëkki ne moom purux la du gërëm ñamu daaw ndax bu fekkoonte ne du purux su fekkee am na ñenn ñu muy xas dana jox cër bu mat sëkk waa ahlu tasawuf ndax lu mu xam ñoom ñoo ko ko xamal kon bala ngaa njëkk a gis imam xaadim busa dangaa war a ñëw ci ahmed loo moomu lu ñuy xeex ci réew mii xale yi di ko def ci moom lañ ko lañ ko jàng ah, ñëw nga it nag ci ki nga xam ne mooy sëriñ maam Cheikh Mbacke maam Cheikh Mbacke bañ nga ko ba créé association bu tudd ànd indi saytaane Sénégal ba nga ko commencé ba tey nag yaa ngi ca di nar nari yow mi nga xam ne fekk nañ la fii ci Paris ngay tàllal say loxo ay jigéen di ci teg ngay wayaan maa ko gis kenn nettaliwu ma ngay wayaan ñu lay joxe cinq euros ki dix euros ngay màjjal ñu lay may ay sagari téléphone bi ci des yow nee nga ASC nga jiite maa la fekk ci jàkk ñuy nodd ngay génn maa dajeeg yow ci buntu jàkk ñuy nodd ngay génn fii ci Paris li muy wax ci maam Cheikh Mbacke day fen moom mii bëggul kenn xam fi mu nekk ci France loolu day fen mus sa taseeg benn juma maam Cheikh Mbacke mus sa dem tamit ci ndaje moo xam si nii biir ëpp gii maam Cheikh ñëw fi mu nekk fa moom dem fa gis ñuy siyaare maam Cheikh waxul dëgg Espagne gii la nekkoon moo du Espagne la woon fii la nekkoon ay xat-xat ak i jafe moo fi jëlee pour dem France Espagne gii la nekkoon li muy wax yépp day fen te ñi ma wax dëkk bi mu nekk wax day fen li sëriñ maam cheikh mbàkke di wax nga xam ne day dagg seen xol yi di leen rey muy sëriñ maam cheikh mbàkke tekk na leen ci ak caay-caay ak ay financement ak di yàq bopp xale yi ak wax lu bon ba bu njëkk ba dañ daa wax addis addis waaye bi nee ba mujj gi seen i wax jeex amatun dara lu ñu wax ñoom lan mujj di def ak wax mooy mujj gi boo waxee ñu ab yéefar nga wala boo waxee ñu ne ab sian nga wala nga wax ñu ab rafid nga wala ngay wax ñu mujj di dagg ujóo yi ak ujóo yi di ko monte ak yooyu te yooyu dafa dem ba mënatut a jàll léegi nag lan ca des nag mooy di sos ak a Habib Coore Njëllafeen la dëkk Njëllafeen gars yi demoon nañ këram de mais daa daw de jour boobu bi ko police di woo maa ngi ñëw leen wax ba ngoon ñëwul ba nii ma wax nii boobu la gëj Sénégal daa daw de daa daw de gars yi demoon nañ këram mooy bi fi coow loolu amoon ten doon wër sëriñ ten jàppoon ni mi ngi këram gars demoon nañ këram ànd ak policiers yi pour di xool wër foofu noonu yëpp mais moom fekkuñu ko fa jour boobu rakkam lañ fekk ban téye woon rakkam après lañ bàyyi rakk sax la jaari ñibbi si ba tey ji ah, ñëw nga it ki nga xam ne mooy sëriñ maam Cheikh Mbacke. maam Cheikh Mbacke barki démb la koo bokkat baay toog ci Sénégal ñëpp di ko dégg mu def ak am lu mu la wax soo amee loo tontu demal tontu ci loola. yow da ngaa mel ne da ngaa jàpp ne Serigne Lamine Sall moo leen def waaye yow moomu yaa leen def dëgg la ndax da ngaa dugg ci problème mu famille fekk famille buy xuloo sa yoon niw ci ndax yow est ce que sa famille baay amuñu problème est ce que sa famille bi yaay amuñu problème lu tax lijjanti woo sa famille parents yooyu nga xam ne ndax am nañ problème wala amul problème ba pare nga ñëw nag ci famille boo xamante ni sa yoon niw ca ngay lijjanti ndax maam Cheikh Mbacke daa war a tontam di jëkk ab famille te yow kay da ngaa waroon fekk maam Cheikh Mbacke di xuloo wala maam Cheikh Mbacke war a tontu nga ne ko bul tontu lii bu lii boo ci tontoo day indi problème waaye wuroo ko ne demal nga tontu ci yow kon boo ni nit nga dana ma jaaxal noo nekkee nit ci bëgg nit dem xuloo jee ak moromam koo xam ne mbokkam la yow daal bu fekkee jàpp nañ ne ku wér nga yaakaaruma ko ba pare nga ñëwaat nag ci ki nga xam ne mooy imam Pape Ndiaye ma ñëw ci euh, mbokk mu ñuy wax Papa Ndiaye nee na dañoo ñëw pour sàmm ndonay mag ñi moo ndax ndonay mag ñi mooy taxawaalu ndax ndonay mag ñi mooy daara joo xam ne kenn du jàng gàddu seen walis di wër Europe ak di wut ñu dundee ngeen di def waaye Europe benn daara defoo lenn ki nga xam ne mooy imam Pape Ndiaye daal di ne imam Pape Ndiaye daal moom jàngalewul aw walisam la rek di wër waaye ku ne xam na ne yow li ngay wax dara du ci dëgg ndax imam Pape Ndiaye lañ gën a xam sax ci yow ndax imam Pape Ndiaye lu mu néew ne mi ngi tafsir alxuraan nit ñi di ciy jariñu imam Pape Ndiaye lu mu néew ne ñu ngi koy woowee imam ndax am na ñu muy jiite te yow loolu amoo ko daraja ji nga xam ne moom la yàlla jox imam Pam Ndiaye soxor dong wala jàpp nag moo tax nanguloo ko ko ba pare bëgg wax ci moom wax ju ñaaw yow nit ku yées nga nit ku bon nga yow nit ku yées nga nit ku bon nga maanaam li nga xam ne moom la ñuy xeex jamono jii ñu toll nii di bañ université di taxaw fi yow lii nga def nii daanaka mooy menace bi lii rek wane ne na ku fi taxawal lu mel ne li nga xam ne moom la ñuy wax su boobaa fii rek la ñuy mujj ndax tàmbaleewuñu demaguñu fenn ngay dàggasante di wax nit ñi loo xamante ne dara gënu koo ñaaw nit nag suy wax day wax di dellu ci alquran wala muy wax di dellu ci sunna sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye li nga wax lépp ay xas képp la amul benn kàddu boo xam ne bu rafet mi ngi ci yaakaar naan sa kàddu yii day su fekkee Modou Lo dégg na ko du ko rafetlu ndax xam na ne fi nga ko jëmale baaxut yow nag li nga war def mooy toppatoo sa bopp fexe noo amee xam-xam te bàyyi xastaata bi ayib coy da xanaa ñu ko miin kata ñu war nañ ko minde ew coy ew coy dafa mas di fen moom day ko xam yàlla du ko binde xëy na lam ni yàlla xaw na kaa seral tut waaye ku mën a fen la moom day jël waxam ji leeral ko ba mu leer waaye day jàpp ay nit leen xas di leen tuumaal lu leen wax leen ko ew coy ñu la masamel wallahi ba ma ba ba tey ci sa biir wax tudd nga ci ki nga xam ne mooy imam mohammed galaay ndiaye euh, galaay ndiaye euh, ndeysaan sa tur wi wuute naag yow lool waaye nag ceddo ceddo dong la mën a doon moo tax bi tur yépp ñëwee ñii tudd mohammed ñii tudd Ahmed ñii tudd lu ne yow nga yem ci gàllaay galaay kenn da xamul lan la waye nak wolof day wax ne ab jatanka ka loko foot foot foot mu def di xéñum saw galaay njaay su fekkee ne xamoo histoire bañ lay tuddé professeur jaaxal na ma nan nga tuddé professeur jaaxal na ma limay wax waxtu nek rek ci ne yeen bu ngeen di wax lo xamne du deug ndax mel du ngeen laaj ba paré doo ko wax ndax nit ki su fekkente ne xamoo turam da nga wara laaj turam ñu wax la ko kooku nga tuddé Galaay Njaay ah, xass ko lu nek nga wax ko ci turam wowo te koku mo yor tur wi gën ci tur wi mo yor tur wi gën ci tur wi ndax mohammed lañ koy woowe woowee Mouhamed di ko dàkkantale kon teg ko ci Galaay Njaay Mouhamed mooy aw turam kon yaakaar naa ne am amul leneen loo koy xese lu dul aw tur ndax moom tur yu mu mooy tur yu gën a sell ci tur ba pare la ma la waxoon ca imam Pam Ndiaye laa lay waxaat ci kii kii li yàlla def ci moom bay boo rek nga nangu ko tabañ a soxor ndax sunu borom def la ci moom xam-xam bu mat sëkk te xam-xam boobu sunu borom def ci moom yow mënoo ci dara la nga war a def rek mooy dem jël àlluwa wala nga jël xalima toog ci yotam mu lay jàngal koo xalaat ci borom xam-xam rek soo ko fa yóbboo mën na koo jox dara jàmbaar la lool ci xam-xam ba pare yàlla may ko mu nekk imam di jiite mbooloo kon yaakaar na ne kooku tamit li nga teg ci moom da nga koo xalaatut waaye soo ko xooloon wala nga laajte ko da xam ne lii ngay bëgg wax dara du ci dëgg saa yu ngeen waxee lu dëgg ba jaaxle rek bëgg indi kenn ci waa sëriñ bi di ko teg di ko daliloo loolu lan la loolu mooy naa féq ndax yéen bu ngeen demee ba seen dëgg-dëgg wax wala loo xamante ni da ngeen caa nar loo xamante ni ay ay wax yu du dëgg dong la da ngeen bëgg indi suñuy sëriñ teg loolu du dëgg su fekkee da ngay kàcc rek nag moom da ngay kàcc yam ci say kàcc loolu laa bëgg nga bàyyi ko xel bu baax a baax sa kàddu yi nga xam ne moom laa dégg lépp nag damay jàpp ne xañ na ñi topp ci yow bu fekkee ay borom xam-xam lañ day jàngaluñ la loolu ndax ku ne xam ne ne ŋàññi ab jullit loolu moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digluwu ko ndax kat yonente bi dafa jàngale ne sababul muslim fusuuq wa qitaaluhu kufru képp koo xam ne jàpp nga ne yaa ngi ŋàññi ab jullit kon jàppal ne ab kàccoor nga képp koo xam ne yaa ngi dal ci kaw ab jullit jàppal ne ab yéefar nga ab jullit kenn du dal ci moom ci xam ne nii kat jaaduwul lu dul dafa dem ba jéggi dayo waaye koo xam ne nii ab la comme yow te toll di dal ci kawam loxoom ko wax wax ju ñaaw a ñaaw wax ji nga xamante ni jëli nga ko jox ko ki nga xam ne mooy sëriñ Maam seex mbakke muy wax ju jéggi dayoo ju ñaaw lool ci ñi nga xamante ni ay mbokk lañu woon doon wax wax joo xamante ni da nga ne Serigne Maam Cheikh Mbacke daa waroon tontu waaw lu tax Serigne Maam seex daa di war a tontu ci loolu ndax xanaa nga fàttali ne euh, jàngu xese bi nga xamante ni euh, Seydina Ababacar bi mbokk ma ñëwee saxaaba yi wër ko mbokk ma di ko xas xas ko xas ko ba mu yàgg yoon Seydina Ababacar daal tontu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jóg euh, Seydina Ababacar ne ko waaw sang bi lu tax nga jóg mu ne ko bi nga tontoo rek la saytaan yi daal di dugg kon nga xam ne loolu dañ ci jàng ne bépp coow lu mu mën di doon rek la sëriñ maam Cheikh Mbacke def yàlla ñu la sëriñ maam Cheikh Mbacke la ko baay maamam ma jàngal ay waajuram it loolu lañ ko jàngal te it loolu la loo xam ne coow la moom du ca toll du ci topp nee nga yow gis nga ko ci biir jàkka wala ci jumaa kum ci mën di doon rek wax dëgg yàlla kon da nga maam Cheikh Mbacke kon gàcce ngalaama ndax kat nga romboon ko ca baar ba wala nga romboon ko fa ñuy defee lu bon wala nga romb ko fani fani def lu ñaaw kon yaakaar naa moo gën ñaaw waye romb na ko ci jumaa ja wala romb na ko ci jakk ja loolu tàgg bu neex la wo xamanteni ni ku ko deg ku nekk donte xamoo ndax dafa julli ba genn wala xamoo lu mu doon def ci jumaa ji waye dugg na nga nga dajante ak mom loolu mo wax deug yalla euh, lu am solo la lo xamne bu fekke ne nga deg nga ko wax deug yalla loolu mom suñu xol la ci sedd lool ba pare ngay wax ne gis nga ko ci rew ma mu melni ko yelwaan yow dafa melni li ngay wax do ci xol dara loolu moy li nga xamanteni ni lañ leen nàmpatal moy wax lo xamanteni dara du ci deug te yeen dangeen ngeen di def ne da ngeen doon nit ne saa yu ngeen di wax dañuy jàpp ne seen kaddu yi kat kaddu yu dëgg la te fekk li ngeen di wax dara dara du ci dëgg ndax mooy li alxuraan di wax rek naan am asiba alladina fi qulubihim wala taxrifannahum fi lahnil xawli wallahu yaxlamu amalukum loolu nga xamante ni suñ borom wax jëmale ko ci xam ne mooy naafeq yi daanaka dañuy wax rek mooy wax yi ngeen di wax suñ leen déggee ngeen di wax seen kaddu yi day neex lool ba da wax gi dëgg la ta fekk dara du ci dëgg nit dangay ngay am sutura ndax loolu mooy li nga xamante ne nii moom la yonent bi bëgg te moom la yàlla bëgg waaye ñàkk kersa te yow ku dégg sa wax di xam ne wax ju ñàkk teggin lañ wax di wax la joo xam ne alxuraan doo ko ci déggee doo ci déggee sunna kon li nga war a def mooy nga dem jéem a jàngiwaat xam li nga xam ne mooy sa diine jéem a jàngiwaat li nga xam ne mooy ay teggin waaye ay teggin amuloo ci dara jërë geen jëf ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp